أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu noo ngi àndoon ak yéen ci qisasul anbiya ñoo ngi woon ci yonenti yàlla daawud tey ñoo ngi jël wafaatu daawud alayhi salaam daawuda bi muy génn àdduna bi ko yàlla di jël boroomam tabaraka wa taala di ko moom xam ngeen ne dars yi paase nettali woon nañ ci waxtaanoon nañ ci yàlla bi muy bind aadama alayhi salaam aadama alayhi salaam bi ko yàlla bindee yàlla génne njabootam gi yépp ci moom faraa fihimul anbiya alayhimu salaam wa raa fihim rajulan yazharu fa qaala ay rab man hada yàlla bi mbindee aadama ba pare dafa génne aadama ñi muy jur ñëpp mu teg ko ci kanamam am na ci ay yonent aadama di leen xool di leen xool aadama gis ci biir nit ñooñu ci yonent yooyu am na fa benn waa ju weex tal ju rafet ba mel ni fleur aadama ne yàlla kii kan la yàlla ne aadama kii ci sa njaboot la bokk haada ibnuka daawud kii sa doom la ci sa njaboot la bokk mu ngi tudd daawud aadama mu ne fa qaala yaa rab kam umru aadama ne yàlla waa sama doom ji moom ñaata at lay am fa qaala sittuna aman yàlla mu ne ko juróom benn fukki at lay am sittuna aman soixante ans lay am juróom benn fukki at fa qaala ay rabb zid fi umri adama ne ay yàlla dollil ko fa qaala laa yàlla ne ko déedéet adama ne yàlla dolli ko la moo tax aadama ne yàlla na ko dolli ndax aadama daa jàpp juróom benn fukki at 60 ans dafa dafa tuuti mu ne mu ne ko dollil ko yàlla mu ne ko déedéet du ma ko dollil illa an azidahu min umrik xanaa ma dagg ci sa at yow yokkal ko kii ma wàññi sa at yow yokkal ko kii aadama ne d'accord naa kon yow yàlla wàññil ma sama at nga yokkal ko daawud mu ne wa kaana umru adama alfa am adama moom ñaata at la amoon junni at junni at la amoon waaye junni at buñ ci daggee ñeent fukki at ñaata ci des daawuda moom ñaata la amoon 60 ans ñu defal ko ci 40 ans ñaata la nekk ñaata falamma inqada umra adam adama bi muy waaj a faatu jaahu malakal mawti malakal mawti ñëw ci moom ne ko yow adama da ngay faatu de adama ne déedéet waruma faatu moo tax dee kenn bëgg ko papa bëggu ko yaay bëggu ko doom bëggu ko maam bëggu ko kenn bëggu ko léeg nga gis yaay ju ne man bu dee ñëwee yal naa dem bàyyi la fi déedéet bu dee ñëwee mu ne ah jëlal kii man doyalaguma. Adama ñaata la maye woon.
40 40 ans malakal mawtu ñëw di ko di ko jël si mu ne ko dese naa 40 de ñu ne ko ah moo tax yàlla mu ne walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya adama waxoon nañ ko démb mu daal di fàtte lan la fàtte mooy la mu maye woon ci ay atam la fàtte maye woon na ñeen fukki at fa qaala baqiya min umri arbauna sana ah mu ne sama at jeexagul de man deewaguma léegi dese naa 40 ans malakal mawti ne ko waa yow wa nasiya adama ma kaana wahabahu li waladihi daawud adama daal di fàtte lim mayoon doomam boobu ñaata at la ko mayoon ñeen fukki at mu daal di koy fàtte fa atamaha allahu li adama alfa sana wa li daawuda miata sana yàlla daal di mottalil aadama junni at yi daal di mottalil daawuda téeméeri at yi kon daawuda téeméeri at la mujj dund léegi nag daawuda bis bi muy faatu bis bu muy génn àdduna bis bi ko malakal mawti doon jëlsi daawuda xam ngeen ne dafa boole woon ñaari ndir daawuda ñaar la boole woon daawuda buur la woon waaye daawuda yonent la woon ñaar la boole al mulku wan nubuwa nguur ak yonent la boole ñaari grade daawuda mooy premier yonent bu nekk buur après daawuda kan la suleymaan wa warisa suleymaan daawud suleymaan dafa donn daawuda ci loolu nekk malik buur waaye nekk nekk yonent xam ngeen ne moom buur bi moom daawuda saa yu xëyee day génn waaye dafa fiiroon nag dafa fiir buggul kenn ku dugg këram moo tax buy génn kër gi da koy tëj def ay kànnaar pour kenn dëgg kenn du dugg kenn du ubbi bunt yi kenn du ñeme jege kër gi benn bis moom daawuda mu daal di génn mu dem mu ñëwaat mu fekk benn ponkal dugg ci biir kër gi toog ci sées bi tegale ay tànkam diraay sikkimam tiitul jaaxlewul jàqut rafut te xam ngeen ne nit kuy tooñ soo duggee ci kër nga dégg borom kaar kër borom kër gaa ngi ñëw nooy def ngay tiit fekkee kër buur nga dugg nag kër buur nga dugg da ngay tiit wala da ngay kontaan da ngay tiit waa jooju nag moom dafa ñëw toog ci sees bi tagala tànk yi nii di raay sikkimam naan nii tiitul rafut daaw da ñëw rek gis ko mu toog daaw da mu ne ko yow la kan loo fi wut kan moo la fi dugal ku la ubbil bunt yi aa waa ji ne ko ana alladi la ahaabul muluk wala umna'u min alhijab man man ragaluma benn buur maay ki nga xam ne ragaluma benn buur te man ay caabi ay buntu munuma téye man daawda yëngal bopp bi yow la kan mu ne ko man maay ki ragalul buur yi waaye maa ngi lay yëgal ne man maay ki nga xam ne caabi ak buntu munumaa téye man daawda moom comprendre na xam na kii kan la koo koy kan mooy malakal mawt malakal mawt caabi mun na ko téye buntu mun na ko téye est-ce que ragal na buur bu ragaloon buur buur yi duñ dee buur yëpp moom moo leen rey fa arafahu daawud bi naatihi nafsi daawda xam waa ji ndax ni mu waxee moom mooy kan daawda xam na kii mooy kan fa qaala an allah anta wallahi idan malakal mawt mu ne ko kon yow giñ naa ci yàlla yow yaay malaakal mawt yaay malaaka bi yor dee ah xam naa li la indi nag marhaban bi amrillah maa ngi nangu ndogalul yàlla waaw yow looy daaw yow yow malakal mooti loo fi ut si mu ne ko dama lay rey si da ngaa war a dee mu ne man daawud damay dee mu ne waaw mu ne lu tax waxoo ma ko woon ma préparé munoo ma ko woon wax ma préparé ko bu yàgg balaa ngay ñëw hmm, allahu akbar mu ne ko ana sa papa sam papa dee na ana sa yaay na sama yaay dee na ana sa maam na sama maam dee na mu ne ana sa dëkkandoo bi mu ne dee na mu ne ana sa dëkkandoo bee mu ne dee na mu ne xamoon nga ne yaa ciy topp boo amee maam mu dee nga am papa mu dee nga am yaay mu dee soo doful xam ne yow mii yaa ci topp da ngay dee moo tax dee du la tàggu ndax wax na la ba pare wax na la maa ngi ñëw wax na la maa ngi ñëw moo tax du la tàggu suy ñëw rek day ñëw ne bëm ndax wax na la maa ngi ñëw bis bu nekk yaa ngi gis nit ñaa ngi dee ñu ngi leen di yóbbu bés bu nekk nga dékku dee rajo yaa ngi tàgge ñoo ngi tànt buntu kër yi ñoo ngi gas bàmmeel yi ñoo ngi dugal nit ñi yow nag nga toog naan man man xam naa duma dee ba ci kanam rek non garaawul quoi ba ci kanam man xam naa ne man temps yi duma dee quoi man booy laa booy du dee xale du dee góor du dee jigéen du dee mag du dee ñëppay dee allahu akbar yàlla mu ne kullu nafsin zaiqatul maut kullu man alayha fan kullu shay'in xaalikun illa wajha ñëppay dee kenn du fi des yàlla rek mooy dul dee ku dul yàlla rek bisa ngi ñëw ñu ne sa bàmmeel a ngi nii léegi nag daawuda xam na kon kii mooy kan kii mooy malakul maut malakal mawti fi mu doon wax ak moom rek daal di koy faat ndeysaan daal di jël ruwam yonent alayhi salaatu wasalaam wax nañu ne annahu lamma gussila wa kuffina wa furiga min tajhizihi talaat alayhi shams daawuda faatu na sang nañ ko xam ngeen ku faatu dañ lay sang bala ñu lay suul ku faatu bala buñ la sangee ba pare bala ñu lay suul dañ lay dañ lay sang dañ lay sang sang la jullee la sang nañ ko xam ngeen nu ñuy sangee ku dee ku dee dañ koy sang xam ngeen nu muy sangoo xam leen ku dee nuñ koy sangee benn bis dinañ dinañ jàngale fii nu ñuy sangee ku dee pour ngeen xam ko pour suma deewee ngeen sang ma comme noonu dégg ngeen ah dañuy dee di da nga yaakaar dañuy toog fii rek ci daara bi ah bisa ngi ñëw dañuy dee de ndeysaan dinaa leen ko jàngal nu ñuy sangee ku dee suñ ko sangee dañ koy sàng xam ngeen nu ñuy sàngee ku dee sàng mooy dañ koy muur ay sër xam ngeen nuñ koy defee naa leen ko won suñu paree ñu jullee ko daawuda bañ ko sangee sàng ko ba pare jant dafa fenk jant bi dafa génn jant bi génn yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na Suleymaan comme yàlla mayoon na ko kattan Suleymaan moom jiitewul woon rek nit ñi ak ginne yi waaye dafa jiite woon sax rabu àll yi picc yi lépp la jiite woon lépp tout Suleymaan daa di woo picc yi lépp lu am laaf luy naaw mu ne leen kolante leen seen laaf yi kole leen seen laaf yi def leen ko nii bu kenn buñ gis jant bi jant bi bu mu bu mu laal picc yi daa di naaw daa di keral asamaan bi ba kenn mënta gis jant bi benn benn picc rek moo ci bokkul benn picc bu ñuy tuddee céeli moom keroog ba ñuy keral daawuda pour jant bi bañ ko laal picc boobu moom daa bañ picc bu tudd céeli moom mooy loolu mel ne sekku te mu ngand te ay laafam ngand waaw moo tax dafa araam gis ngeen kenn du ko lekk picc boobu moom dong moo bañ yeneen yëpp dañoo ñëw taalal seen laaf pour jant bi du génn keroog pour jant bi bu mu laal nit ñi ndax nit ñi ni ñu baree woon picc boobu rek Suleymaan ne picc yi tàllal leen seeni laaf yéen ñëpp picc yëpp daal di tàllal seen laaf yonent bi sax daf ko wane keroog mu ne nii lañ def nii ñëpp dañoo kole dañoo tàllal seen laaf yi dañoo naaw tàllal seen laaf yi nii kole picc yi ba kenn mënta gis jant bi loolu yëpp ngeen gis ci ay ngëneel yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko may daawuda alayhi salaam nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wan na keroog nit ñi ci ay loxoom naka la picc yi def seen laaf yi mu ne ba mu des rek benn picc bu ñuy woowee an nashr mooy céeli nee na moom doo nga lànk yeneen yépp tàllal nañ seeni laaf ba ñu suul daawuda ba pare jant bi keroog laalul nit ñi daawuda alayhi salaam mbokk yi yàlla wàcce na ko wàcce bu màgg màgg màgg màgg màgg màgg bu ñuy dekk yowmal xiyaam dañuy fekk daawuda ci wetu arsh ci wetu arsh arsh mooy fa yàlla nekk arrahmanu alal arshi arrahmanu alal arshi stawa fa yàlla nekk bu nit ñi di dekk dañ fay fekk daawud yàlla woo ko moom daawud ne ko ana sa baat bu neex bi dama bëgg nga jàngal ñu sa tawraat mu ne yàlla amatuma baat bu neex parce que yaa ko jël yàlla ne ko dama la koy delloo tey daawuda dafa neexoon baat ba buy jàng picc yi dañuy ñëw di ko déglu picc yi moo tax ngeen dégg ñu ne daawuda yonente ba mu déggee aba abu musa di jàng alxuraan mu ne laqad utiya mizmaran min mazamir ala daaw loolu moo tax daara bi ñu tuddee ko mazamir wala moo tax ñu tuddee ko noonu mazamir ala daaw du noonu la daara bi tudd loolu moo tax ñu tuddee ko noonu ndax daawuda baatam nu mu neexee woon daawuda ne yàlla neexatuma baat ndax sama baat bu neex bi yaa ko nangu yàlla mu ne ko dama la koy delloo tey fii ci àllaaxira ndax nga jàng allahu akbar daawuda daal di yëkkati baatam daawuda yëkkati baat allahu akbar lépp lu nekk aljannat di déglu daawuda fleur yi malaaka yi nit ña jinne yi dugg àjjana tout xeer yeeg lépp taxaw di déglu daawuda alayhi salaam ndax baat bi nu mu neexee allahu akbar waaye xam ngeen lan moo neex bu daawuda jàngee ba pare yàlla day woo sayidina muhammad mu ne ko yow tamit kaay jàng allahu akbar ah gars yi àjjana neex na de yal nañ fa yàlla dugal nit ñi yàlla dajalee fii yal nañu yàlla boole noonu biir aljanna loolu mooy dars tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.